mes téléspectateurs il TV une dame ngi euh, ah? ok merci beaucoup euh, le premier tir de l'ASS Santiago. c'est le capitaine de l'ASS Santiago qui va tirer le numéro 10 c'est le numéro 10 qui va tirer et qui marque ok ay ca laay see sanc ba ñoom ñoo dóor li nga xam ne moom mooy seen premier tir ñu marqué ko seen capitaine bi moom moo ko dóor premier tir bi marqué Le deuxième tir pour c'est Malika Plage. ASC Sanc ba ñoom ñoo dóor li nga xam premier tir léegi ñu de Dougal. dugal ASC Malika Plage ñoom ñoo dóor li nga savez premier tir arbitre bi sifflé na waa arrière Mingi ngi jël li nga xam c'est lu def et qui marque Malika Plage Dougal, na premier tir, euh, là c'est Santhiaba Dougal, na li nga xam ne li Santhiana premier tir. Nous suivons en laissant la série de tirs au but entre Malika sur mer et tout simplement Saint-Denis. Saint-Denis et Malika encadrés comme enseignants. C'est bien ça. le numéro 13 de l'ASC Santhiaba moom mooy dóor li nga xam ne moom mooy deuxième penalty bi. teg na mbuusu ndox dóor na ko mu toj. l'arbitre arbitre bi sifflé na tir u l'ASC Santhiaba qui tire euh, et qui dugal na benn tir sur dugal ñaar ko ci nak ñi euh, euh, deuxième euh, tour Malik sur mer ñom ñoo sol les maillots vert et blanc ñi nga ñi jaune et noir comme l'AS comme comme Giraffe de Dakar Lolay lay fatali. mi qui qui marque ay ca ñoom ñaar ku ci nekk dugal na li nga xam ne li moom mooy seen seen deux waaw nuru na ko nag nuru na ñoom ñaar ñoo bokk sëriñ ay ca waa ji daf may fàttali eh, toftin ak gàttaay bi muy numéro onze eh, laay see sanc ba

lu muy def lu muy def gu ah, raat raata na li nga xam mooy troisième tir bi waay waay waay waay waay waay c'est vrai tout jàngul mënuloo ko tari gars yi dañuy toppandoo ñi nga xam ne ñii ñoom ñooy euh, tubaab yi dañuy toppandoo ñi nga xam ne ñii ñoom ñooy tubaab yi te tubaab yi li ñuy def dañ koy jàng ci fi nga xam ne fii moom mooy entraînement. laay seen Malika Plage mi ngi seen euh, ñi ngi arrière di préparer li nga xam mooy seen troisième tir. lan lay def mi ngi fecc mi ngi fecc mi ngi fecc mi ngi fecc mi ngi fecc contre pied dugal na ko dugal na li nga xam mooy troisième penalty bi loolu la merci beaucoup mbir mi fulla ak faydala rek fulla ak fayda fulla ak fayda ak jom fulla ak fayda ak jom mais ba tey comme niñ koy waxee di jaale di jaale waa Malika plage yëpp di jaale waa Malika plage yëpp ci li nga xam ne lii moom mooy li leen dal di préparer li nga xam ne lii moom mooy final seen entraîneur ci li ma dégg seen entraîneur yàlla def mu génn àdduna tey jii nii mënuñu ko fayee dara ca fa rek indil ko le numéro 14 de l'AS saint moom moy door li nga quatrième penalty bi door na dugal na ki mag la mais dédicace à Bousso si dédicace à mais sans oublier président Alpha Diallo Boulaye c'est passif. Mais sans oublier mon ami, mon frère, Mr. Oussou Badian, et Lamine Fall. Mais sans oublier Am Diallo, chef Cheverbi. Mais de me faire le grand cadreur, il s'appelle, il homme, Tala Yonundam, Rom Telebou Magbi. il dafa nekk loo xam ne lii lu baax la fa nekk loo xam ne lii lu baax la parce que Malika plage def nañ li nga xam ne lii bërki dem écarté ñu dañoo boole jël képp koo xam ne kii dañuy entraîneur nga bu nekk ci zone Malika dañuy préparer li nga xam ne lii mooy seen final pour na ñëpp ñëw soutenir équipe bi entraîneur bu ci nekk na ñëw yokk li nga xam ne lii indi xam-xamam yokk ci équipe bi Malika plage ñoo door seen quatrième tir lan la waa ji def lan la waa ji def door na dugal na en tout cas comme niñ koy waxee dugal dugal rate gagné rate dugal gagné voilà rate dugal gagné rate dugal match nul mais fi mu toll nii li ci des nii le numéro ci li gis je souhaite bien samay bët baax na numéro 9 bu laay see sànca bi mooy dóor li nga xam li mooy seen cinquième tir bu ko dugalee ñi ñëw dugal Malika Plage gagné na bu fekkee waa ji dafa raté Malika Plage ñëw dugal Malika Pla jël na ndam li en tout cas avantage bi mi ngi nii kii su dugalee muy waa Sanca ba nii seen numéro 9 bi bu dugalee Malika Pla ñoom rafet dañuy tolloo mais bu dugalee Malika Pla ñëw dugal ndam li ndam li Malika Pla yóbbu na ko lan lay def lan lay def mi ngi dóor dóor na dugal na voilà bii nag euh, moom mooy li nga xam ne nii mooy sànni tàcc bi li nga xam ne nii moom mooy euh, sànni tàcc bi ci diggante ki nga xam ne kii moom mooy. Malika Plage ak l'ASC Santhiaba tey jii comme niñ koy waxee rek ki nga xam ne kii nii moom mooy Malika Plage moom mooy dóor seen cinquième penalty su ko dugalee gagné na su ko ratee dañuy daal di tolloo ñu daal di daw ci li nga xam ne li mooy benn benn yi waaye yaakaar na yàlla rek a xam yàlla rek a xam. lu ne mun naa nekk aha dëgg la règlement dafa am lu mu wax dañuy door penalty yi ñoom ñett ñëpp àndandoo di dem xam nga loolu rek ay tegtalu sëriñ la sëriñ ñoo lay jox tegtalu dof yooyu naan la bu ngi ñuy dóor dernier penalty bi na ñëpp ànd dem mais amul sens mbir mi su waree dugg dafay dugg bal bi su warta dugg du dugg voilà en tout cas li ma lay wax mooy taala doon naa am lu ma lay expliquer ci li nga xam ne lii moom mooy tiro bi bu ñu tollee fii parce que bu ñu tollee fii dafay nekk loo xam ne lii tey ñi nga xam ne ñi dañuy daanu crise cardiaque bu leen suukar jege nañ ko màcc bu leen suukar jege nañ ko màcc wala tàngal mant buñ ko deful fi ñu toll ni émission ku ci ne fi ñu toll ni sannaw ajuna dernier tir pour Malika Place muy cinquième tiram su dugalee su dugalee eh dugal na Malika Place jal na li nga xam ne li Malika Place Malika Plage jël na li nga xam ne ni moom mooy kubu kade bi Malika Plage Malika Plage Malika Plage Malika Plage gagné na ki nga xam ne ki moom mooy laay see Santhiaba mooy li ma waxoon rek am na yoo xam ne nii amul sens amul sens xoola waa ji mi ngi koy yenu atadu ko mu toog mooy li ma waxoon sànq Malika Plage amuñu dara lu ñu mun a fayee ki nga xam ne kii moom mooy seen entraîneur bi nga xam bi moo dëddu wane ginnaaw muy yàlla jël ko lii rek moom moo mu noon tey euh, euh, bokk ci li nga xam ne lii moom mooy ay ñaanam mooy ñu indil ko li nga xam ne lii mooy ndam li merci beaucoup à tous les dirigeants de l'ASC Malika Plage merci beaucoup à tous les dirigeants tous les joueurs tous les présidents yi nga xam ne ñoo nekk foofu noonu ci Malika